njàppanteeg arbaatun ñeent la al awal bi si njëkk arradatu mooy murtad incha allah musal wa hiya moom kufru muslim mooy weddu julit julit bu nekkoon si lislaam ba mu neexoo daal di weddi lislaam ne gëmatul lislaam julleetul wooratul joxeetul alaka loolu mooy rab loolu mooy murtad loolu bu ko nit defee ah njàppam yàqu na bu nit weddee lislaam léegi mu toogaat ay ay ay nit xeer yeddu ko mu duggaat si lislaam taw balaa moo def dara day jàpp asaani ñaareel ba ashakku mooy sik sàkkal fi wujudu tahaara si am lab te sik sàkkal ba xam am naa lab wala amoo lab jàppal ne amoo lab ngeen jàpp jiwaat xamal na si njàppañ ne aw fi xaris wala nga sik sàkkal ba xam ah si tëlle ba xam sama njàpp toj na wala déet jàppal ne sa njàpp toj na aw fi saabiq wala aw aw fi saabiq mouvement wala ngay sik sàkkal laab gi ak toj gi ba moo si jiitu ba xam ah damaa jàpp ba pare sama njàpp doo ko toj wala ba xam sama njàpp mu tëjee pare daa doo ko jàpp si sàkk si ñaar yooyu ñoo daa jàppal ne benn amu si moom jàppuwaat maanaam maa leen des seen taxaw li fekk taxawul ak moom achaku sik sàkkal ba ñun dafa nekk koo xamante ne nag ah loolu feebale si moom kon mag mu dem ba naax nga xamante ne mën na jàpp léegi balaa dem ñu mu sik sàkkal la xam jàpp la jàpp kooku lañ koy jégal asaalis ne teel alxadasu mooy toj waaw alxadasu ñetteeli suñu toj njàpp alxadasu mooy toj loolu moom alxadas soo ko xamul maa mooy lépp loo xamante ne xaraja génn na min ahadi sabilin bàyyi ko bàyyi ko si benn si ñaari génn waay te mooy sa kanam wala si ginnaaw lépp si génn rek ah alaa wuji sixa si anam wér wax ma nag ku feebar si nga xam alaa wuji sixa mooy koo xamante ne feebarul waaye fekkee koo xamante ne feebar si nit bi nga xamante ne muy téye saw bi dafa yoram wala muy de yéeme noonu mu am feebar ba nga xamante fu mu toll day siital kooku siital googu nekkatul sobe si moom dina sob si moom su jullee mu mu yee sa njàppam waaw moo tax mu ne alaa waju si xas anam wér wala atiyaat ak anam ak anam gu du baaxoo waaw jigéen tamit li ñu baaxoo si moom ah mooy mborogam pu passé fukk ak juróom fan kon su passé fukk ak juróom fan nekkatul lu ñu baaxoo kon boobaa loolu le loolu di jëriñ nekkatul feebar si nekkatul nekkatul saba feebar la waaw moo tax mu ne lépp loo xam ne dafa génn si ñaari génn waaye rek ah su génnee lépp lépp lu génn si ñaari génn waaye rek xamal la si jàppañ arabi o ñeenteel bi al asbaabu mooy sabab bi li nga xamante ne du toj njàpp waaye sabab la si toj njàpp loolu moom salaasatu ñett la al awal bi si jiitu alam sama mooy laal képp koo xamante ne toujours di def na am àllal la ci bànneex beneen si si laalam fi la aad ci si ñu ba si ñu baaxoo waaw bu njëkk bi si sabab yi nga xamante ne moo toj njàpp mooy laal jigéen jëpp laal képp koo xamante ne soo ko laalee di nga am si woon bànneex ka zow ji nii ko sa jabar wala amati wala sa jéebéer wala koo xamante ne wala koo xamante ne araamu la nga laal ko jaamu jaamu bu jigéen nga laal ko am si woon bànneex wala nga jublu ko si kooku soo ko defee njàpp tàkk sa njàpp yàqu na mais laal kooku nag kañ lay yàq njàpp li mu ne in passé ñun bu ñu ne si laal gàll la di ko bànneex boo jotee xaati mu am ko si soo si jullee bànneex wala nga am ko si sa njàpp toj na aw laa wala déedéet wala dëkk see jublu doom waaye am ko si ah nit ñoo tey njàppam toj na aw wala wala daxaa am na ko si ñu ngi lay xasi suñu jublu wala mu am ko si te jublu ko si ñett yi moom ñeent yi moo am ñett yi benn mu jublu ko si am ko si wala mu jublu ko si te am ko si wala mu am ko si te jublu ko si mu si mënta laam di yàqu loolu ku gàttal déret foo nañ ko fenn fam si génn moom moom fu jigéen soog foo na si génn moom génn na génn moom kenn saltu si nga xam am ko si wala jublu ko si ñun njàpp day toog njàpp mutlaqan xëy na nag moom tolko day toog njàpp mutlaqan moo xam mutlaqan li mu joyal fala turaa deful sàmmanteeg fiiha si foofu jigéen àll bi te bànneex kenn sàmmante ko si ba mu amee si bànneex wala jublu ko si wala lu mu doon moom soo ko fóonee rek njàpp toj waxaw naa suñu wax ni lan su ma laal képp koo xamante ne toujours def na am àll bi te bànneex bi lam si si laalam aadatan si li ñu baaxoo loolu nag bañ koy wax ixtiraazan dañ ko wax ixtiraazan ngir wattandiku ñun man si ñi nga xamante ne laa toujours deful am àll bi bànneex bi lam si si laalam am na xam ne soo laal am suñu bànneex aadatan si li ñu baaxoo kooku koo xamante ne li ñu baaxoo mooy soo ko laalee du action bànneex soo ko laalee du tëj ci njàpp xëy na xanaa comme laataan ko mun ko njàpp parce que yow tamit xale bu jigéen bu ndaw allati boo xamante ne laatu saxaay def ko faytoo comme genre maam maram nga xam ne tolluwaguñu fu mu leen faytoo seen leen jugaguñ seen yaram xaw noonu ñooñu soo laay sa njàpp jàqul wal maxaram ak ko ja armal ak ñi nga xamante ne laa aram ko ja aram ñi nga xamante ne yàlla araamal na si yow nga takk leen ñooñu seen laay sa njàpp jàqul kon ñu ngi ki sa yaay wala binti ak sa doom bu jigéen wala uxti ak sa rakk bu jigéen wala sa doom bu jigéen dégg nga asaani ñaare ba si sabab yu toj njàpp masu dakari nafsihi mooy laal dakara boppam alayhi salaam mu laalee ko almuttasil ba aji jokk bi baatin ka fihi si biir si biir tënkam aw jambihi wala si wàllu tënkam aw baatin asaabi wala si biir baaraam ya aw jambiha wala si wetu baaraam ya mu laal ko nag min gayri xaayil ñu suñu diggale waaw sa zakara soo ko laalee te laalee ko si fii mu la wax bërëb yi mu la wax sa biir tënk ah wala sa wàllu tënk yi wala si biir baaraam wala si wetu baaraam ya te ba nga koy laal dara doxu sa diggante ak zakara ba solo dara am nga ci moo si tey aw safin wala si jaw moo xam yaa ko tey wala teyoo ko si jàpp yàqu ni il tar da moo xam bànneexu nga si laal nga am laa wala déedéet masahu moo xam laal nga ko ñëw kam nga ci si bopp zakara ba kam nga mooy bopp zakara bi aw xayriha wala fu dul foofu na nga laal zakara bi rek fi mu saxee ba fi mu ba si bopp bi foofu laal rek te laalee ko si béykat yi ma la wax si jàpp yàqu na. mu ne wala yantaq bi bu tëjee nag bu tëj ah bi ma si si laalam ñun faw koy xaayali si kaw diggale wala wu kaanam donte nekk na mu digg diggale nga xay fan di lu woyof. waaw donte da ngaa sol lu woyof lu yaraax ah soo ko laalee si kaw loolu si jàpp yàqul. mu ne wala bil ko ko xëcc di jaagal ak xaqataay fi salaat si julli xaqataay si julli tam du yàq du toj njàpp. nga yàq julli gi waaye itam jàppale. waaye fekk nañu ci imam Shafii nee na xaqataa di julli day toj njàpp. day toj njàpp. bu fekkee ngir imam Shafii moom nee na xaqataa si julli day toj njàpp. mu ne walaay yu mas si indi at yu jaagin laal jigéen farjaha payam nit ñoom jigéen su laale payam tëjul njàppam alal madhab yi loolu nag wuute la. wa qiila am na ñu ne yanqulu day toj mutlaqan moo xam ay wax yu bëree si am. am nañu ne jigéen su laalee payam njàppam jàqul am nañu ne jigéen su laalee payam ak nu mu ko laalee njàppam jàqu na wa qiila am nañu ne déet yan kuréel day toog njàpp gi kañ im xapadata alayhi nem yëpp na pay ba fekkee def ko nga bëgg la xam njàpp gi day yàq aw alkafat wala mu lunkal baaraam si pay ga wala mu jël baaraam bi lunkal ko si ñaaw tuyu pay ya kon la waa njàpp gi day yàqu ay li ma namu si alkafat mooy alxalat mu tàbbil yadaha bay na safrayha si diggante si ñaaw tuyu pay ya waaw kon wutee mooy sam wala an taq bi bi tëju nag in ma sànneem laal na zaahiruhu bi tëju am na ñu ne su laale bi tëju rek noonu laa si kaw noonu ci njàpp la wala bi ma si dugub di jaageen laal ginnaaw sa ginnaaw soo ko laalee sa njàpp yàqul wala unsayni di jaageen ñaari yoor yi wala bi inaab di jaageen tukkal min gayri lazzatin su dul bànneex ñu gënal sa dakara su taxawee sa taxaw sa dakara su tukkalee taxaw te amoo bi te te te bànneex taxul ah sa njàpp yàqul wala bi la def di jaagan bànneex bi nagari si xool mun ngay di majin sa dul majin jigéen ngoom la nga koy xool li si am bànneex te tuuroo majin sa njàpp yàqul wala bi tafakkur yaagan xalaat ma la def ànd ak bànneex fii xal bi si xolam mun ngay ina aadu suñu tukkal ni ko doon tamit jigéen sooy xalaat soo koy xalaat sa xol li si am bànneex te tukkaloo taxaw sa zakat taxawul sa njàpp yàqul loolu bu faraane mun a ñaari bànqaas ak nii al awal bi si njëkk al qalqaatu shadid gurguri bu tar sa biir bi di gurgur yi noonu ñuy def ma ne bu fekkee dafa tar loolu li ngay tuujub li wuloo day waral njàpp dégg nga asaani ñaareel ba qaala wax naa fil kitaab si téere ba damay al mudawwana ma nga namu si téere ba nee na insa allah ni mu julli nag moom waa jooju woo te fekk mu ngi daa fi aw mi ngi gëñeen teg alxadasa toj njàpp la alxadasa toj ga ah toj gi saf nga toj toj la nga gëñeen teg moom pour gaaw julli wala nga sab sawul yi dañante moom si biir julli ji mu daa boobu mu daw wane nee na kooku aada abadan day baa mu faw dégg wa qaala wax al cheikhu sëriñ si ne in manaahu nemtere na ko daalika loolu fekkee diggante boobu muy diggante ak sobe si wala toj bi fekkee tere na ko min tamaamin faraayidi si matal farata yi aada abadan day baa mu faw loolu manaahu nemtere na ko min tamaamin sunna si matal sunna yi fekkee loolu tere matal sunna yi la ko tere aada fi waxtu kon si waxtu bi lay baamu loolu mën a avu nem tere na ko min tamaamil fadaayil yi si matal ngëneel yi fala ya aadata aadati dara waru ko ci du baam ay saalis ñetteel li si sabab yi toj njàpp nga wàllu aqli muy mooy dañu xel moo xam bi naay si xamee la am si xam la am ñu su xamee xelam dem na awul jinne wala saddum jinne wala ko jinne jàpp awul sukkur wala mandi kaana moo xam nekk na as sukkur la ko mandil bi xaraamin nekk lu araam aw xalaal yi wala nekk muy lu dagan moo xam da nga naan sàngara mu mu mu lu araam mu araam mu mu mu mandil la wala da nga la naan lem naan si lu bëri wala soow nga naan si lu bëri ba mandi ah loo si mën doon si jàpp yàqu na aw yi noonu wala si nelaw ñu faqoo noonu gis na ba taala te mu yàgg waaw fekkee ne dafa diis te yàgg dafa yàgg te diis sa njàpp yàq na aw xasar wala mu gàtt te diis aw xasura wala mu gàtt te diis waaw nit ñi day toog njàpp la bi xilaaf na yëpp naan nelaw nag alxasu bi woyof nelaw woyof moom fa innahu laa yanqulu laa yanqulu du toog njàpp walaw taala donte yàgg na lim yàgg yàgg doon njàpp la waaye neen soo demee si yéen téere ñoom neen sopp nan si nelaw yu diis te woyof nelaw yu yàgg te woyof sopp nañ si borom mu yeesalaat njàppam loolu moom nelaw yooyu soo ko xamul ëllëg yi mooy nelaw yi nga xamante ne yashuru dina yëg saaxibuhu boromam bi ma nee dawgu si koy dem morom yegg si ak ku dikk soo tëddee si néeg bi ku dugg si néeg bi nga yëg ko ah ku jël si néeg bi nga yëg ko kooku mooy nelaw kuy nelaw nelaw weef waaw wa man wasaqi nelaw diis wala bi mooy nelaw yi nga xamante ne laa yashuru bi yëg saaxibuhu boromam bi daal yëg si loolu mooy nelaw yi nga xam ne ki ki tëdd yëgul li xew mën nga dugg si néeg bi def loolu li ngay def ba génnaat bi la yëg kooku mooy mooy borom ñooy gis kooku moom mooy ñoom ñooy toj jàpp wa yaxrum dina aram alal muxdisi aji tolle asalaatu julli ki nga xamante ne def na si benn yi mu la wax si ñeent yi mu la wax ne mooy toj jàpp ah fekkee def na si benn aram na si moom asalaatu julli wa tawaaf ak jot kaaba gi wa sujudu tilaawa ak sujudal jàng wa sujudu sëy ak sujudu jamuj wa masu musxaf ak laal kaamil yadihi ak loxoom aajo ulin wala bant wa xamluhu ak mu gàddu ko bi xaritatin si si morsa xarita mooy xarita mooy jël nga jël comme comme li fi ñu def kaamil yi damay xadut al ilaaq wala gàddukaay lu mu si mën doon daal soo soo xasee ba ba tëlle dañ yëpp araam na ci yow way jus na dagan masxul lawxi laal aliwo lil maalim ñeel aji jàng ñeel aji jàngale ji wala mutaallim ak aji jàng ji aliwo alquran daganal may nan ki nga xamante ne mooy jàngale ak kii jàng dagan may nan leen ñu laal ko ala xeyri wudu in sulul njàpp wa masul bihi ak lal xaaj li mutaalimi ñeel aji xamlu ji ki nga xamante ne mooy jàng may nan ko mu laaj xaaju kaamil mu laal mu laal gis bu gis bu nag suñ ko waxee mooy lu matul kaamil lu matul kaamil te gis bu la waaw lu matul kaamil comme xadis na ab banaas wala yaasin banaas wala këxi banaas kooku kii jàng ma neen ko mu laal ko si jël njàpp wala kaana doonte nekk na baaliran di di ko majeur yooyu ko di si def na li si biyaani ñel ndaw ñi masal mushaf laal kaamil al jaamiu daaji booy li quran ñe alquran lépp kaan boo xamante ne dara manqué wu si si man xale ñu daal ko min réeri ñu doy suru njàpp parce que loolu moo jibaatul ko si yi nga xamante ne mooy wàll cangaay yi nga xamante ne bu ko nit defee cangaayal farata war si moom ñeenti la in ko taaw dami la xay di dog bu dee ci mbërëg jigéen bu gisee règle ba règle bi arrêté war na si moom mu sangu wa damit ni faasi ak dee ci wasin niki noonu su ko gisee ba dee jooju arrêté war na si moom mu sangu wal mawt ak dee ñu ci ree war na si moom mu sanga sang ko cangaayal farata wal janaaba ak janaaba ñeenti yi mooy li nga xamante ne ñooy wala cangaayal farata wa yoom janaaba soo ko xamul nawaani ñaari xel la xulujul mani génn mani yu al muqaamin ba ajo lënk léegi yi lënk ci ñel bànneex al mu'taadi ba déglu baaxoo na rajul li bàyyi ko si góor ay mag ati wala mu bàyyi ko si jigéen mu ngi dee génn si góor di génn si jigéen moo xam ba muy génn fii noonu si ñaaw la génn ah comme nag ñu nga tëdd gént seen jigéen kooku ñelaw la aw yaqaratin wala si yëg wala nga am si nga nga tëdd ak sa jabar kooku yëg la di xatil xaaf si fataa xaaf ga yaqaba di dund yu ma salaam ñu law waaw muy benn boo xam ne ñaw ñawaani benn bi boo xam ne bi njëkk yi mooy génn bu mel ni bu lënkaloog bànneex bu lënkaloog bànneex bu ñu baaxoo si góor ak si jigéen yëpp moo xam ne si nelaw la génn wala si yëpp waxade jibu amaan waa xale yi dina waral tamit alakoso cangaay la xurujihi ñel génnam moom maniyu min gayri muqaarnatin la si biir lëkkaloog bànneex léeg-léeg mu ñëw mu génn si biir lëkkaloog bànneex bu boobaa tamit cangaayal cangaay day war gis bu nekk ay jaabi amu booloo nga tëddal sa jaay ba pare xayal te da nga bànneex si maam waaye nag ba nga pare wala muy yëg dara génn te da ngeen ñun pare génnoo nañu génnoo tus sama wax bi jot mu génn mu ni suma alama ñu mën a xam ak yàq si liñ jot muy sang ba nga pare nag xanaa ngaa sang mën yi doog a génn waaw ba bu bu loolu amee tamit da ngaa da ngay sangu ji dama réewul xasafati bàyyi leen ak fàdd bopp zakara aji ma zër ni suma tee mu kallaf boobu zakaram su ko fàddee si pay bu ma doon si pay bu ma doon njàppam jàpp na dafa yemoo soo xamul ma réewu xasafa rasu zakar ma bopp zakara aw mbagg yi fi yaa wala fàddu kenam ñu maqtu ay xaa bàyyi ko ci dogu waayam mu mu fàddu ko nag fii farji aadama si pay doomu aadama aw xëy yu doomu aadama moo xam si pay doomu aadama ko dugal wala ñu si pay doomu aadama wala xayawaan sa pay bopp zakka daal su xasee nga dugg si pay pay bu mu la doon tàngaay war na insan moo xam si pay jigéen la ko dugal aw dakka yi wala wala si pay góor waaw wala góor bu jël dakkaam dugal ko si pay jigéen jigéen boobu tamit dafa yàqu na ñoom ñaar ñëpp xay yi cangaay war na si ñoom ñaar ñëpp xay yi moo xam kuy dund la aw may si nga da ngaa fekk néew bu dee nga nga nga tëdd ak moom loolu la ñuy jël doontale mën yi génnul sax cangaay war na ba tam naa dina tere al janaabatu janaaba ma waa ni al xadasi way tere toj al asgar bu ndaw toj toj bu ndaw li la si tere woon yëpp waxoon na la waaye yaxrumu alal muxdisi asbaat wa tawaaf bu ma jeex mu ne loolu tamit su amee janaaba te- tere nañ la ko ma ziyaati taxriimi xiraasi ko an ànd ak dolli ku ko araam jàng alquran ki nga xamante ne moo toj la ah toj la bu ndaw may na ko ma jàng alquran ndax waxoon naa la kiy jàngale ak kiy jàng may na la ñu daal aliw alquran kiy jàngal kiy jàng aji jàng yi tey may na ko ma daal xaaju xaaj alquran juz daal si biir njàpp waaye nag ki nga xamante ne dafa am janaaba dafa arrangé moom mu jàng alquran yooyu aaya ndi rek aaya wa naxwiha ak ñëw aaya loolu nag dañ ko may alaaw ji taaw yi si anam musu doog moo tax ñu nanga ko ndax ñu ñu ngi béy muslu soo xëyee war a jàng laqad jaakum ayatul kursi lii laa fi dabay neen pour muslu sa bopp da nga da nga am janaa mais nan la ko nga ruqaa ak mocc wala yow yaa yow rek yaa fi mën a mocc ah te nit ki am na lu ko fett njiit ji màtt na ko wala yow nga war ko mocc te aw xam nga ko nga ko nga koy moccee mais nan la nga jàng ko wala si dal ak tegtal wala nit ñëwut si yow di la laaj jot di la laaj lu koy tegtal si alxuraan mais naa ko saa sàngam soo ko demee mu ay sàngam fu la nekk mais nan la boobaa nga nga wax si nga nga wax alxuraan waa du xulli masjid ak dugg jàkk araam na si moom wal mukk si ak sax fii si jàkka ji li tax mu wax wal mukk si fii nii nag fekkee sa yoonu kër dafa dafa jaar fa pour nga dem sa kër fos nga jaar si biir jàkka ji ndax foofu sa yoonu kër foofu la aw am na xam ne seen kër noo la mel ah fos nga jaar si jàkka ji waaw mais na la nga jaar si jàkka ji waaye waaye araam na ci yow nag nga sax si jàkka ji nga sax abi ñëw nga dam dam gaaw génn wala ko su càng nag càngaay janaa bàyyi ko si janaa ba waaw cangaay bi nga doon wax naan la yi koy waral te mooy xay googu ni xaas ak mootu ak janaaba bu yooyu amee cangaay googu nag loolu la bëgg a wax mooy lan mu ne moom cangaay googu mustamil aji làmboo la ala faraida si ay farata wa sunani ak i sunna wa fadaila ak i ngëneel amma faraiduhu ndaal farata yi fa xamsatum juróom la njëkk yi mooy niyatu rafel xadasi yéene yëkkati toj al akbar bu mag da nga yéene yëkkati toj bu mag waaw wala nga yéene faratay cangaay wa taamimu baahir jasadi ak matal bi ci yaram ba muy ñaar bil maay ci ndox ak ndox bi ci yaram bi nga fexe ba lépp feeñ sa yaram mu tooy ak ndox nga dal ko ak rab ak nga raga sa yaram bi ba mu tooy xet nga nga rag ko ba ñagas ñagas yeeg ah ruq-ruqaan yëpp daal di tooy xet ba taxlilu shaari ak xalil karaw waaw sa kaw lu mu sëq-sëq mu ngi ko xalil ba jël bi tooy wal muwalaat ak méngale mooy toftale waaw maa sunu su nee nag fa arbaatu ñeent la albadu mooy doore bi raxas leen si raxas ñaar loxo yi xam ne xaalis bi maa leen toog ñu leen tàbbi ñoom ñaar fi inaas bi ndam la waaw sa loxo bala nga kaa tàbb si ñaar si biir ndab la ndab li ngay sangoo nga raxas leen loolu sunna la amasa si naax lu mel ak ba- raxas ba mbër ñaari nopp yi wala mag mu ak galax ni ko wala si saaw ak sarax ni ko waaw maa fa bàyyi lu wóor yàlla nga ne la fa sabaatu juróom ñaar la ak tasmiyatu may wax bismillah wala boobu ak doole bi raxas si maas si raxas li nga xamante ne alaaba di yi nekk na si yaram ñu ne sobe soo commencé ba yéene li nga njëkk a def mooy xool fi am fi am sobe sa yaram nga raxas ko njëkk gi nga ko njëkkee nag loolu mëneel la su ma wudu topp njàpp kaamilatan gu mat maratan marra benn benn soo paree nga njàpp njàppal ah, nga jàpp njàppal benn benn boo ñu mu yee nag bi ci njàpp la raf ak jinaab di njëkk di toj am ci lëkkal aaba yi si yow cës su may fawatul maay itam bëbbal ndox ma alaala si si si boppam fara si ñetti yoon su may fawatul maay itam bëbbal ndox ma ala si xëyir ay man si wàllu ndeyjooram su mel xabal ay sa lu njëkk muy mu koy bëbbal si wàllu càmmoñam wala badu ak commencé ak doole bil aali fi gën a kawe xabal asaafil lu njëkk fi gën a suufe wa taqlilul maay ak ñëwal ndox mi ma ay ixkaamil rasi ànd ak xereñ nga raxas ga fexe ba tànk ndox ma yam bañ a tànk ndox mi bari yàqate di kasir xamal si kasir xam jóge ay li ma namm si ixkaam itqaanihi mooy mooy xere ñegem ñu ne atayammumu tiim jàngal na la njàpp jàngal la cangaay léegi tiim na lay jàngal atayammumu tiim su la ko laajee lan mooy tiim ne tahaaratum laab la turaabiyatun bi ko ci suuf li nga xamee woon laab mooy ndox laab boo xamee ne ñu koy defee suuf mooy wax atayamum laabu suuf mu ne moom tiim tas mu dafay làmboo ala masal waji si masa xaru kanam wala yéen ak ñaar loxo loolu dong mooy tiim masa xaru kanam ak ñaar loxo waaw mooy wan nag yam moo koy waral wa sababu yi koy sabab yi nga xamante ne mooy tax ah mu da nga ah, tiim dagan waaw lii nga xamante ne mooy daganal tiim moom la lay wax mu ne faqdul maay mooy ñàkk ndox xaqiqatan dëgg-dëgg ñàkk lool ndox ñàkk lool lool amoo ko amoo ko fenn la waaw mais ñu la nga tiim aw maa wala loo xamante ne boobu moom fii xukmihi mi ngi ci attee ñàkk ndox wala loo xam ne ñàkk ndox waaye moo ak attee ñàkk ndox benn yoon misan yakuna comme mu nekk maawuufa moom mel naa ci ndox maa loo xamante ne laay fii du ko doy nga am am nga ndox waaye ndox bi du fi nekk doy la soo ko tiimee doo am loo naan wala doo am loo togg aw maa ngoo ndox moo xamante ne yaxaaf dina ragal bis si amaali si jëfandikoom fawaate naf si faatu bakkanam ndox moo xam ne soo ko jëfandikoo amoo loo naan wala xale yi amul lu mu naan soo ko jëfandikoo mën nañ faatu voilà dama tiim te ndox moom moo dañu ko kon naan aw fa waata man faatu wala faatu njëriñ gàtt baag fi bëy yaa ngi fi xar yaa ngi fi te man nan te ndox mi doo nga fi am soo ko jàppoo dina am lu ñu naan te boobaa sa njëriñ mooy mooy yàqu ndax loolu sa njëriñ la kon boobaa jox leen ko ñu naan te yow da nga dem tiimi aw ziyaadata marad aleykum salaam wala dolli ko feebar wala am nga ay góom too jëfandikoo ndox mi mën na dolli mën na yokk feebar bi aw taaxuro bay wala mu yéex a yéex a wér yooyu yëpp fekkee dafa am aw xawu samaadin wala sosog feebar wala ndox mi soo ko jëfandikoo mën na mën na sos yow ay feebar kon yow baa bàyyi ko bàyyi fi ndox mi te yem kii bi dégg nga mooy baa xajaa dagan ak tey mu mu tiim ñu la xadee si asxar si toj bu ndaw wala akbar ak toj bu mag yëpp soo tojoo toj bu ndaw la ak soo tojoo toj bu mag la yëpp dagan na nga tiim mu fekkee amoo ndox waaw waaw ida wujee ne ay sababuhu sabab ga lil marudi wal musafir lil marud ñeel aji feebar wal musafir ak aju tukki ni kulli salaatin ñeel bépp ñeel bépp julli waaw julli bu nekk nag da nga koy tiimal moo xam toj bu mag nga nga toj la wala toj bu ndaw musimo doon dagan nañu tiim mu ne wali saxiix ñeel aji wér alxaadir ak aji teew li salaatil janaasati ñeel julli jullee néew ida taayana même jullee ga ràññeeku na si moom ki nga xamante ne dafay wér teew dara jotu ko ah mu war a jullee néew te ndox amul mayal ko mu tiim jullee ko bu fekkee néew gi dafa ràññoo ko ci moom mooy bu fekkee aji day ji avant mu dee daf ko waxoon su ma dee mu jullee kon waa mayal ko mu tiim jullee ko wali fadin ah salaam aleykum mën na ko jullee ak tiim wali fadin ak farata xayli jumaa bu dul jumaa farata bu dul jumaa mel la mu tiimee ko waaye jumaa mënoo ko tiimal bi charte charte an yaxsha mu ragal fawaatal waxtu faatu waxtu bi bi isticmaalil maay si jëfandikoo ndox mi si charte nag ni su jëfandikoo ndox mi am na ndox mais waaye su ko jëfandikoo ndox mi waxtu mën na ko faat kon baax na tiim dem julli ji waaw ne wala yooyu bu baax mu julli ga nag su jullee pare ndox am comme koo xamante dafa am woon ndox mu tiim julli ba mu jullee pare ndox am ah kooku sopp na si moom mu baax mu mu mu mu jàpp fekkee waxtu bi lees béy na sopp na si moom mu mu euh, mu jàpp euh, baax mu war julli gi sopp baax mu googu nag baax mu cofeel la bi xilaafil jinaas da wuute na ak jullee néew ida lam tataayan ñu ràññeekul ci moom li ki ñoo tamit jullee néew ñun bu fekkee ràññeekul ci yow nga jullee ko ak tiim ah da nga koy baab wa fadli juma ak farata ak farata juma farata juma tamit soo ko tiimalee da nga koy baam wala xasee donte rek la fawaatoo bu faatu waxtu ba dégg nga wa saa yu naafil ak mboolem naafile yi ak mboolem naafile yi suñu xaar suñu la ma wa saa in naafil ak mboolem naafile yi suñu xaar naafile yi suñu naan wa mustaxabaatiha ak yu ñu soppi ya yooyu soo leen tiimalee julli doo ko baam mu ne wayab tulu dina yàq waaw mu ne wa yettulu dina yàqu ak tayammum tiim bi maa si lépp loo xamante ne yettulu dina yàqoo bi si si loolu alwudu wal jàpp lépp loo xam ne soo ko defee sa njàpp yàqu ah ah soo tiimee soo ko defee sa tiim yàqu dañuy wujud yi may ànd ak amul ndox xabla salaat lu njëkk nga julli soo tiimee lu njëkk nga julli nga am ndox ci nga yàqu na illaa yaxsha lu dafa ragal nag fa waatal waxtu faatug waxtu bi bi istimaal yi lu nag waxtu des bëriwul ay quatre raka ma si des ah sa soo fi nekkee war a jàpp day jël temps te kon waxtu bi day paase su boobaa mën nga mën nga dem julli noonu mu ne way daara aalen gis na almaa a ndox woo te fekk ma fi salaat yi si biir julli lam tabtulu yàqul salaatuhu julleem te bu mu ko dog tamit soo doon julli tiim julli nga julli ba si biir julli gi nga dégg ñëwee biir tijji na ak lañ sa julli mu ne la tey moom di tiim nag bi saidi si pàkk ak tayibi bu teey pàkk bu laab bu teey dangay dem tiimee foofu foofu la ñuy tiimee dégg nga boobu moom asaayu tayib soo ko xamul ak turaab mooy suuf wal xajaru ak doj war ramlu ak beeñ wa jamiu ajzail ad ak mboolem li nekk si kaw suuf yëpp te mu laab ah xeer yeeg yëpp daganu ci béy maanaam béy mooy suuf sa nooy maadaama li feeg mi ngi sax ala hayatiha si melokaan bi ko yàlla bindee woon li feeg melokaan bi ko yàlla bindee woon mi ngi si sax soppeekuwul moom la si tiim lam toga yéexa soppiwu ko sanaa du aadama yi liggéeyu doomu aadama bi tabaxin si togg waaw comme ay ciment nga xam da nga soppi ah wala ay laso yooyu mën a si tiim ba turaabu tiimee suuf nag afdalu moo gën min xëy ni suuful moom suufu suuf ba turaabu suuf afdalu moo gën min xëy ni suuful moom waaw tiimee suuf nag moo gën soo ko amee moo gën waaye tey moom nag bu ñu tiimee ala cheyin si dara na fii suñu cher loo xam ne dafa cher te nga ni kurus daga ñoo tiim wal fiddati ak xaalis wala ala nit bu ñu jaagee si kaw si kaw teg teg kenn si tiim tawu fas wala tawu gileem wala ala bisaati ñu jaagee si kaw tappi wala xasin ñu jaagee si kaw basan yéen kaan la donte nekk na fii waa Sèvres Basal moo ko baax mu poussière donte ab pënd la sax am poussière dara ñu tiim. wéy yu ziare dagal lil marid ñeel aji feebar إذا لم يجنم أو من يناول كفجة التراب الصوف أن يتيمم متين بالجدار سميس المبني بيب طبخ بالطوب شبا الني waaw ban boo xamante ne kenn jaxasewul ko da kenn tegu ko tamit bu fekkee nit bi dañ kaa tabaxee loolu ay yi feebar bu fekkee amul ku ko jotoon suuf si mu tiimee nee na ko mu tiim si miir boobu bu fekkee miir miir bal la aw bil xijaat wala mu tiim si dëkk ida kaana nem nekk na xayru masu masturatin nekkul lu ñu peinturé bil jiri si raso masul mooy nekk lu mu nuuree mooy nekk lu mu peinturé rek bil jiri si raso fekkee doj bi kenn peinture kooku laso doj la doj carrément la ah man la si tiim waman tam ma ko tiim na ala mawdii mayisin si bërëb sabe fii dafa am sabe xamoo ko woon nga ñëw tiim ci wala mi alam taxawul bi nijaasati si sabes aara bee baabu fi waxtu si waxtu bi mu ne walaay ko si biir fil at mu tiim bi tiraabin si suuf soo xamante